te bu baax julli tey sëlmal ca Seydina Imaamil Mahdi alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam. bu ko suñu nijaay ma xëy na diggante Ablaye Mbaye nii ak Soxna Dia lii nga ci ñaan yàlla dégg na ko ci barke ajuma ji yàlla ko yàlla def def ci lu kawe baax nga donc lu baax lu baax rek moo koy seet. te fa tabaarakallaahu Serigne Bass mi nag di doom ci Chérif Abdou Lahad di doom ci Seydina Issa Rouhou Lahi Imaam Lahi kay gaaw ci Seydina Limaamul Mahdi ñu taxawoon fii ci benn ni mën a jëmm mën a tey moom mooy def dara def tabaarakallaahu am na ku ko wax léegi tey bu ko maamam fekkoon fa mu toog ñu defaraat toogaayam kon ñu ko ñaanal wér sanga bi ñu ngi lay ñaanal bu defal yal na yàlla doole sa sutur yàlla boo jàq yàlla boo jàq yaa man ci njaboot bi yaa man ci kër gi yaa man ci diine ji yaa man ci lu baax ku dégg Sëriñ Bass bu démb ba ca gëm subaam ngoonam léppam mooy coppale ci jàmmalaay yi di liggéeyal maamam Seydina Limaam alayhi salaam te Ablaye Mbaye ñuy toog mën a seetlu ci lii moom lu bëree bëri bu ñëwee ba fii kanamu mbokkam wax na dëgg soxna Jaara yéen a ñëwoon ñu ñaan ko ñu may leen ko ci kanamu maamam Seydina Issa la man mii maa fas kon barke boobu nga wax ci sëy boobu yàlla dina ko def incha allahu rabbi loolu nag lu mu doon la moom Jaara ndax fàttoo waajuram soxna Kumba Njaay mi ko meññ li soxna ci Cherif Abdoulaye nekk ak moom ba tey li mu wante ginnaaw lu baax rek ci la ma sa nekk ci la ma ci dox moom la ma sa wax ci tey ak ngor ak jom ak yërmande ak uf ñëpp kon jaaro lu mu def pour baax rek doyal kon yàlla na yàlla barkeel sëy bi yàlla def ci ndimbal kon jox sanga bi Moussa ne ay kàddu bismillahi rahmaani rahim waaw ñu tàggu foofu tuuti yàlla yàlla yi ci ñuy firnde toog ndax sëriñ bi li muy wax nag nit ñi la koy wax ñu dégg ko. waaw ah, ñu ci gannaaw ñu ci gannaaw nañu àgg suuf rek. bu amee ku mën a jottali bu ñu jottali ah gars yi gars yi toog leen waay gars yi toog leen wala ngeen dem ci latéral yi s'il vous plaît. lii nijaay ci yoon. te fii bu ko fekkoon lépp ne. ndax moom indi fii nijaay moo indi muy alaaji Njaga Jaxate ak yàlla xaaraa jënd saam di sama xarit di sama lépp gisoo ñeente ni ñu ci taxawoo teel a ñun mooy suñu kii mooy ma waa kay mooy suñu lépp pour nu banque mënu jox xaalis ñi cee wax moom la fee luñ soxla ñu kii moo ko kii la bàyyi kii kii mat ku nekk xam ne ko fay surtout li ma wax dama bëgg dama bëgg fan laa ngi nii sama ami daal faa la woon kii nag sama papa sama papa sama papa moo war a ñëpp a ñëw daal aa bàyyi sa ma mun wax lim daal damay jooy tey bii daal bi su mbégte la ku mbir nag daa defee foofu ah, te lu yaa ngi dëgg la dëgg la maa ngi bëgg sama bopp

addina na gi yaayam addina na gi yaayam woonu ba ñu ni maa ko jur waaye gërëm naa ko sagara naa bari toogal turandoo yi dana bari de waaw Modou Mbaye li ma ko na ndawtal yaa koy wax dama ni ndawtal bi yaa koy annoncé maa koy annoncé léegi sànqalaan dàmm a de. laal kuroko. turandoo yi mën naa bëri de. bëgg jëlee sa engagement ci Pawlish di tey. dëgg la rek faram ci deret naa mu dem ba Soxna Njaay. te bëgg jël sa engagement boobu boobu nitu nitu engagement. nitu la. El Hadj Youssou Diagne. turandoo yi mat de. No, tengo no, tengo no. Para ñara ñego, togol, togol. Togol. Wa wa njogu mbay ñu do wal. Wa njogu mbay wal. Togol micro. Yamu micro, boy, yamu micro. Micro yamu. Micro yamu. Musa. Ha? Yamu micro. Musa. Musa. Defal nañ ko. Musa, ñu ñu jëgal. Musa am ko. Musa micro. dina la ci delloo.